liggéey Touba ji ñaari liggéey la matériel bii bi bi bi bii defaree Touba ji ak ñi yor matériel bi di ci liggéey ci loolu la jotee sama yéene boo ko mënoon lépp lay def ndax suñ Touba rek moo doon lépp li ma ko mënoon seen li ma ci mën daa ci ji daa ci jëm sama kenn kattan kon nag ci ñëw ko kanam waaw léegi matériel bi rek moo leen taxoon a jóg ba ngeen xam ne nag ñii yor matériel bi rek dañ ko moo ta bàyyi xel lañu waaw yéen nag yéen leen di yor ci ko dajale di jëm ci yéen bu ko gënee waaw waaw nga xalaat bett la waaw dama ci okkase ne auzu seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan walaaw yaxsimuka min annaas ya allah barke tuba wax fir man banaw bina aarafi wax fir li man amarum bihi jami wal tudxilil musliha fi yaddi wa fi daari wa sabit anhu bilhaadi wa fii bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, seen mbokkum taalibe Assane Diop muy dellu si di siyaare di jiital ci siyaare bi sëriñ tubaa cheikh mamadul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd Eh, di siyaare sëriñ Afia Bousso al imam tey nag suñu kàddu mi ngi ñëw ci eh, ak leeral li jëm ci liggéey bi nga xam ne mooy aju ci daayira muxaddamaatul xidma nga xam ne moo nekk ci diaspora bi eh, gannaaw bi ñu siyaaree waa diaspora yëpp diggante Amérique ak Afrique ak Asie ak Europe ak fépp waay nekk ci bitim réew ñu ngi leen di siyaare Eh, di ñëw nag ci liggéey bi nga xam ne yàlla daa dogaloon eh, ñu amoon ci ay taxawaay yoo xam ne daanañ ko amal fii ci Touba Espagne eh, bu ñu tuddee Touba Espagne daañu tudd sunu jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ci biir réew mi buñ ci jiitalee ku ñu wax sëriñ Mor Tambidou Alhaji Abdou Ndiaye di sunu jëwriñ fii ci Touba El Canari Euh, di ci tuddi tamit sunu jëwriñ président fédération Touba Espagne Serigne Mbacke njaay ak jëwriñ sëñ Adi Touré euh, ak bay Dame Lo ak fii ñu nekk mu muy sëñ Abdou Sari tuddaale nan ñëpp euh, di wax ne leeral gi nga xam ne lañ bëgg indi mu ngi jëm ci liggéey bi nga xam ne daayira fédération daayira Seexul Xadim yi nekk Espagne ñoo daan ànd di dajale seeni jëf di ko dajale di ko yóbbu ca dayre ba loolu nag mu ne su koo tudd te tudd ñu sëriñ Maam Mor Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Murtada mi nga xam ne moo àndoon ak daayira bi eh, ñu dem ci daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk fii ci Espagne eh, mu wane liggéey bi eh, ba kenn ku ci ne xam liggéey bi ba da ca dugal jëfam Euh, jëf yooyu itam mën nañ cee tudd lu mel ne ànd ak ñoom ci liy saytu jumaa ji ci li koy seetal kenn ku ne xam na ne yóbbu nañ fa ay machine yoo xam ne jumaa ji ku xam karo yi ni mu toll li ñu ni mu yaatoo loolu waa yóbbu nañ fa ay jëf euh, lu mel ne tamit euh, oto yi nga xam ne ñoo fay nekk di ànd ak personnel personnel bi nekk ci biir jumaa ji rawatina fu mel ne waa Daara Kamil loolu waa Espagne kenn ku ne gis na liñ ci yóbbu yaakaar naa yóbbu ba liggéey ba tàmbalee léegi yóbbu nañ fa lu toll ci ñetti oto eh, bu ñu xoolee tamit lu aju ci ay luy setal muy ay sarpeer lu mel ne ay bale lu mel ne ay liquide kenn ku ne xam na ne jumaa ji ni mu toll loolu tam Espagne yóbbu nañ ci lu bari bu ñu xoolee tam su màggal gi jubsee euh, li aju ci biir jumaa jëpp dañ koy setal tàmbalee ko ci barabu cheikhul xaddim bi diggante làmp yeeg sensé peel yi defaraat lépp luñ fa war a def loolu yëpp waa Touba daayira Espagne dañ cee ànd ak daayira muxadamaatul xidma euh, bu ñu xoolee tamit daayira muxadamaatul xidma Touba Espagne euh, seen taxawaay ci jumaa ji Eh, kenn ku ne déggoon na ko ci sëriñ Afia Busso al imaam ci bi mu jotee ndigal li nga xam ne moo jëm ci eh, yeesalaat tab yi nga xam ne mooy jumaa ji lam ca seedal waa Touba Espagne ñun ñëpp dégg nañ ko diirub ñaar fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne lépp lu ma sa nekk yitte tey daayira bi rek waa daayira Touba Espagne ànd nañ ci ak ñoom ñu mat ci seeda lool ndax ñoo doon ndaw yi nga xam ñoo nekkoon ci diggante daayira bi ak Touba Espagne doon ndaw li nga xam ne tam bi daan nañu yónni ci àdduna bi yëpp euh, tey jii nag liñ ci bëgg a indi rek ci ak leeral mooy euh, yàlla dogal na euh, lu tàmbali woon ci atum 1989 ci juróom-benn dëkk muy dem ba yaatu muy dem ba daj mbooleem Espagne yëpp mbooloo mi nga xam ñu daan ànd di ko liggéeyal ñu gën a feddliwaat seen laxasaay Ah, muy daayira Seexul Xadim nekk fii Touba Espagne yàlla dogal na ah, kenn ku ci nekk gën na cee joxaat yitte liggéey bi ba ñu wutaat ah, yeneen doxin yoo xam ne la Seex Ahmadou Mbacké gay dafa ma waxoon ci liggéey bi dana doon loo xam ne mooy laaj luñ xam te di ko def fuñ laaj luñ mën te di ko def xam tey jii daayira seexul xadim yëpp gën na noo boole suñ bopp eh, amal association nationale boo xam ne day dox ci biir Espagne yëpp eh, kenn ku ci nekk dëkk ba nga nekk nga mën faa jëmmal lu jëm ci liggéey bi nga xam ne mooy daayira muxaddamaatul xidma bi nga xam ne moo yoral Sëriñ Tuubaa jumaa ji loolu nag ni ñu koy amale mooy euh, bi yàlla dogalee nu am association nationale boobu nga xam ne dafa daj Espagne yëpp amal nañ ko ay compte banque yoo xam ne maanaam banque laa kay sa lay doon nga xam ne fépp fu ay mën a nekk ci Espagne wala fu génn Espagne maanaam sa jëf dana fay mën a ñëw bu fa ñëwee tamit euh, mbooloom Cheikhul Khadim ñi nga xam ne ñoo ànd di liggéey ñooy xamandoo la cay dugg ñoo koy génnee ñoo koy yóbbul jumaa ji muy daayira bi ah, loolu tamit lan tey wax mooy daayira bi moom moo toll ci jamono boo xam ne gën naa tàllal loxo mboolem ku daan jàpp ci liggéey bi ndax buñ xoolee liggéeyu daayira bi ah, nim ci baaxoo doxe mooy bu koor rek ñu laaj lu jëm ci daayira bi su màggal ñëwee ñu laaj lu jëm ci wàccaayu màggal gi nga xam ne dañuy mën a xamal ne rek daanaka at mu ci nekk ñaari yoon lañ am ci yu ñuy yëkkati seen kàddu mu jëm ci wàllu lu jëm ci diaspora bi euh, tey nag bu yàlla dogalee ba ñu taxawal lu tax liggéey bi gën a nosu ñu woo ci ñëpp ngir bëgg euh, fépp foo xam ne association nationale muxaddamatul xidma Espagne agsi na fa Eh, weer wu ci nekk kenn ku ci ne na ko sëriñ ba waxe woon rek loo ci coobaree woo rek soo ko defee ci compte boobu incha allah daañ ci jot te dana dem fi nga xam ne moo tax a jóg muy ci daayira Muxaddamaatul Xidma sëriñ Afi bu sa nekk ci bopp bi eh, amal nañ tam benn compte banque boo xam ne mi ngi nekk compte Orange Money boo xam ne eh, daayira Muxaddamaatul Xidma moo ko yoral boppam sëriñ yi bu sa al imaam nekk ci bopp bi Euh, muy 77 452 76 58 77 452 76 58 compte boobu nag mi ngi nekk ci moomeelu daayira Muxaddamaatul Xidma nga xam ne fu waay ne ci àdduna rek ci diaspora muy biir réew ak bitim réew euh, lépp loo ci tàbbal dana egg ci loxol daayira bi Eh, ginnaaw loolu tam ñoo ngi yëkkati kàddu sant kàddu yi ngërëm kàddu yi masawo yi bàyyi ko ci ki nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ bu Bousso al imam mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi di jot li kàddu yi cant ngërëm ci waa daayira bi yëpp eh, ci waa bitim réew yëpp ñaan suñ borom mu delloo si waat jàmm mbas mi yàlla jeexal ko tàkk di leen jot li tamit kàddu yi cant ngërëm ñu nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi buñ ci tëddee sëñ Abdou Lahad Muxtaar sëñ Abdou Lahad Mutalib sëñ Abdou Lahad Cerno sëñ Abdou Lahad Maam Asta mi jiite relation sociale euh, kon daal liggéey baa ngi noonu loolu lañ doon indi doon ko leeral mu jëm ci liggéey bi xam ne mooy daayira Muxaddamaatul Xidma Touba Espagne noonu lañ ci soññee ñëpp noonu lañ ci tàllee la loxo ñëpp képp fu ay ne ci àdduna rek liggéey baa ngi noonu seen jëf gis nañ fi mu dem ci daaray kaamil yi ci noddukat yi ci buubkat yi ci bayaankat yi ci képp koo xam ne rek ñu ngi nekk ci biir jumaa ji rek gis nañ ne seen jëf dem na ci ndax daayira bi moom ni ñu koy daan waxee rek waxtu bu eh, amee yitte rek xelam dellu ci waa diaspora kon liggéey baa ngi noonu gis nañ seen taxawaay ci gàmm yi ci dundal weeru gàmm gis nañ seen taxawaay ci bàq ya ak ci armeel yi gis nañ seen taxawaay ci lépp loo xam ne ci loxol daayira bi la nekk rek gis nañ ci seen taxawaay kon ñoo ngi siyaare ñëpp di wax ne rek liggéey baa ngi noonu euh, incha allah noonu lañ ci tàllal loxo àdduna yëpp. ndax daayira bi suñ saalihu da ci amoon moom yaakaar lool jàpp ne lu ne mën na koo taxawee lu ne itam mën na koo fere Cheikh bi noonu. Cheikh Sidi Muxtaar noonu sëñ Muntaxa bu mu dikkee moom lépp leen bàyyi ne lu ngeen xaar rek fekk naa leen ci diisoo sax baax na waaye lu ngeen xaar rek bi ñu ko daata wax fekk naa leen ci kon kooku moom booyal booyal booyal nanu moom bu nu booyalee fu i nu jëmee ci biir taalibe yi dox yoruñ dara bu nu booyalee ci taalibe yi rek la ñu kon taalibe yi ñu ngi leen taalal loxo jàmbar ngeen lool tabarkalla jàmbar ngeen lool ñu ngi sant di leen gërëm yàlla yàlla yokku leen yàlla yàlla yokku leen te nangul barkeel yëngatu yi barkeel njaboot te jëf ji bu ci dara neen barke Sëñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di war a ak ñëpp di rafetlu taxawaayu kenn par kenn ndax itte ji nga xam ne jox nañ ko xamees na ko ku ne xam nañ itte ji nga ko jox dama damaa mënta lim fii ndax koo xool rek gis taxawaayam te mënuma xam naa ne mënumaa lim ñëpp ba ñu jeex kon moo xam ne rek kenn par kenn ku nekk xam ne sa itte ak sa taxawaay ci dayoo te yàlla rek tax nga def ak jëmi sëriñ ñooñu nag kenn leen jëfal di sooy incha allahu taala